Bakar Ndiaye nekk kenn ci ñi jàppal tànk le président Ousmane Sonko waaye bokk ci coalition Diomaye président kenn la ci allié yi actuellement doon ñëw ci réaction par rapport ak li di information bi mooy Ousmane Sonko ak Diomaye génn na. d'accord imam ñu bàyyi la nga wëyal. waaw dañ ma doon jox information que ni. waaw mais fi mu ne yaakaar naa ni. dugal ko fii dana jafe trop. dugal ko fii moom dana jafe trop ni ma na na na na saafonte na jël temps saafonte ak askan wi defe naa ne loolu moo koy permettre mu dugg tranquillement li nekk li nekk fii kenn mënu ko expliquer. kenn mënu mhm. mënu la ko wax kenn mënu la ko wax. Mhm. parce que ñoom actuellement nii ñu ngi dem di ko jëli. wala boog ñu ngi koy kari ci yoon wi moom laa doon wax ak garde corps bi léegi. Mhm. mais pour oto yi génn sax kër Ousmane Sonko pour dem jëli ko c'est tout un problème. ndax monde suuf bi ah bi bi bi ñëw daal jéggi na dayoo jéggi na dayoo daal jéggi na dayoo trop. Mhm. ñuy ñaan nag ñi nga xamante ni peut-être yooyu waa croix rouge wala boog parce que nit ñaa ngi daanu rek. Mhm. que ça soit rouge wala sapeurs-pompiers ñu bàyyi xel ni ay sénégalais ñoo fi nekk. Mhm. yoo xamante ni xërte moo leen yóbbu ci lii. ñuy ñaan daal bu fekkoon ni ñoom mën nañ déplacé wu dana doon loo xamante ni ëllëg. dana rafet daal parce que fii li fi nekk daal li fi nekk Abdou Khadre jéggi na dayoo. Mhm. bu loolu weesoo loolu information bu jox la rek. waaye li li am solo mooy. Mhm. réew mi dafa jëm ci loo xamante ni jàpp naa ni ak soppi ku mën naa am. Mhm. ndax ans ñu koy wax ak dog ba tey yàlla dogal lii ci bu tere nag natt dana jaar ci diggante bi. mais natt booba mooy li nga xamante ni moo nar a defar li nar woon yàqu te naroon a ñëw ci kanam. Mm-hmm. li ma la mën a wax daal mooy tey ci histoire bu ngande la ci Sénégal. Mm-hmm. boo xamante ni benn politicien benn politicien laa wax. Mm-hmm. a ah, man na ci li ma fekkee ci li ma fekkee te tey maa ngi làq jëm ci sama juróom-benn fukki at. waaye dayoo bu demee nii ci biñ ko annoncé ak léegi ak li fi tase ci molo ak ni ñu tàqalikoog seen sago man man mosuma gis <laughs> man mosuma gis lii daal. jërëjëf Imaam daal fi mu ne nii daal jéggi na dayoo daal. jéggi na mm-hmm. dayoo jéggi na dayoo trop trop trop trop trop trop. d' accord jërëjëf Imaam ñu bàyyi la rek nga bégee ces moments intenses la yi nga xam ne. waaw waaw mbégte la daal mbégte la daal waaye lépp nañ ko delloo ci yàlla rek. <laughs> Uh-huh. mbégte la waaye lépp nañ ko delloo ci yàlla. <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah ala kulli haalin jërëjëf lu ci mën ci xew daal bu egsee dina dinañ gën a jokkoo insha allah insha allah les uh-huh. allah bu ñëwee bay wax rek yow wooñu comme ça ñu dékk ko suñu micro insha allah jërëjëf imam merci beaucoup insha allah baax na jërëjëf jibi jërëjëf euh, Imam xalifa Babacar Ndiaye nekk kenn ci jegeñaale Ousmane Sonko yi di allié coalition Diomaye président doon àddu jëm ci euh, cette nouvelle xam ngeen ko nouvelle bi du lenn lu dul basiru Bassirou Diomaye Faye Ousmane ko donc libre pour le moment ah, ñu ngi jokkook nag ñi nga xam te ni ñooy suñu ay ndaw yi nekk ci terrain bi Wally moom ak Lalla ñoom ñoo nekk ci cité kër góor gi la fa nekk ci nit ñu ngi koy wan ci vidéo yi yéen a ngi sama côté ah fu ngeen gis euh, image yi daal di xam ne foofu fees na maanaam dell donc donc du côté de Cap Manuel également ah le brave euh, wala sax mën naa ko wooy le guerrier kii di euh, euh, Matar Cissé moom actuellement moo nekk foofee ca Cap Manuel donc bu ngeen ma mënee wool tamit Matar ma xam ndax mujj naa ma amal ñoom leader ya nekk foofu noonu ci Ousmane Sonko di ak El Malick ak kii di. Euh, ben Talib Sow on va essayer également d'entrer en contact avec les avocats d'Ousmane Sonko maître Abdina Ndiaye maître Babacar Ndiaye ku ngeen ma ci mën a jotal rek ba ci mel ni kii di Siré euh, Clédor Ly ñoom ñëpp Bamba Cissé ku ma ci am rek en tout cas si euh, ñoom ñëpp même ses ses ses amis Matar moom du côté de Cap Manuel moom moo fa nekk ngeen xoolal ma tamit Cheikh Baara Ndiaye ndax dinaa ko mun a am Mara Niass ak képp ku nekk foofu rek Matar ma di la nuyu baax baax. waaw maa ngi dégg ay Sonko la ñu bëgg de Matar noo def. waaw maa ngi dégg de maa ngi dégg Matar. waaw ma déglu waaw dafa sori de. Ah. donc loolu moo ñu xaw a yëm ñun presse bi ah, ay pa ak maire ñëpp a donc de toutes les mun nañ wax ne ay pa comme ay maire nga ma wax. mu mhm. génn ñu ngi yokku naan ñun Sonko lañ bëgg ñun Sonko lañ bëgg donc ñoom ñu ngi li nga xam ne a yor ëllëg réew mi euh, euh, yaa ngi doon wax les leaders de Pastef dafa am ñu nekk foofu noonu ba tey ñu nga fa wala dañoo dem wala qu'est-ce qui se passe ñoom nag ñoom nag ñoom nag nanguñu wax euh, presse bi ah, nañ moom moo war a jël Sonko borom bi mu ngi la Ousmane Sonko di nar baal ma dama déggul kan moo am accès foofu. ba fii d'accord am na solo Matar xam naa ne liggéey bi condition yi métti waaye nag euh, macha allah yow guerrier nga donc félicitations et courage à tout à l'heure heure allah. jaajëf Matar moom actuellement moom mooy sama ndaw li ma nekkal Cap Manuel dégg ko nee na foofu noonu tamit finalement Cap Manuel nga xam fu mu nekk dafa xaw a sori de mu ngi ca ginnaaw ñoom principal ak ñoom ay Dantec donc ca ginnaaw la nekk ah, euh, donc nee na foofu mu ngi fees dell itam ah, du côté de Cité Kër Góor gi tamit nee nañu mu ngi fees dell on est à 22h39 ici au niveau du Sénégal donc ah Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye l'information si vous venez de nous ah, de nous rejoindre xam leen ne mooy ils libre actuellement waaye formalité modeste pour ñu génn donc saafonte ki seen i nit Matar mi ñu nekkal du côté de Cap Manuel li mu ñu wax leer na moo di ne actuellement am na ay oto yoo xamante ne nii ay leaderu Pastef ñoo fa nekk ñu gën cee ràññee nag ki mu ci gis bëtam jaxran moo di ne benn talib sow mu taxaw ca bunt ba nee na daal am na kenn ku nekk ci accès bi di dugg ak génn xam naa xëy na mooy faciliter euh, transition bi euh, ci diggante Diomaye ak euh, Ousmane Sonko ah, a léegi nag lu ci mën di am itam gis ngeen suñu ay caméra samp nañu ko foofu suñu ay lantinoor dékk nañu ko ñoom ñëpp donc dinañu leen jox lu lu wér wóor ci ay euh, xibaar alors ma ci ànd ak ci édition spéciale bi Mbisantine Abdoul Khadr Coulibaly waaye di entrer en contact bien sûr ak kii di Papa Wali John mi nekk ci cité kër góor gi Lalla Rasoul ah Dieye Dieye Samba ñoom ñoo yor caméra yi ak Fallou di ñu amaam jom ah, comme fa comme kii di Mamadou ak Samba ñoom ñëpp Samba ñoom ñoo nekk ci nag euh, technique bi logiciel bi ah merci à ah, yéen ñëpp Yax Guèye maa ngi lay nuyu bu baax a baax mu ne cette libération n'effacera euh, point tout ce que tu nous as fait subir pendant ces trois ans donc il s'adresse peut-être à euh, Macky Sall yéen laay lire seen i commentaire parce que yegg si naa ci fi ma leen di sargale yéen ñi daal di def ay commentaire Nanette Lopez merci à Nanette Lopez nee na Wali ça va machallah Amin Massa Ousmane Sonko rek mon frère Sarr merci beaucoup ah machallah Sénégal 7 Nanette Lopez ah mention spéciale à vous donc depuis euh, France Paris merci beaucoup Mali donc Adja Soxna Adja merci moom mu ngi wax ne Diouf yi Emzo donc wax nga mais normalement il doit sortir de donc actuellement nee nañu ah, pare nañu pour daal di génn euh, Abdallah Seck alhamdulilah la wax moom Pape di mbay donc Mouhamed Ndiaye ib ibnu Khatab ah, Diouf yi Emzo yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu donc mm, ku ngeen ma jox rek ma wax ak moom allo dafa mel ni am na ku nekk ci ci ligne bi salaamaaleykum su fekkee dafa nekk ci ligne bi euh, maître Babacar Ndiaye alors euh, maa ngi en direct également ci édition spéciale bi donc sama suma xarit la euh, metre Abdinar Ndiaye dama buggoon su fekkee mën ngeen ma ko jox rek ah moom moom tamit maa ngi gis ñu ngi waaw maître Babacar Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maître nuyu naa la suma xarit bi. waaw maa ngi lay ziar maa ngi ziar waa Sénégal set yëpp. <laughs> te vraiment di kontaan si nouvelle bi d' abord. waay parce que lii wax dëgg yàlla sénégalais yëpp moom dañ doon xaar. dëgg la parce que jàpp nañu Ousmane Sonko li ko dugal prison mooy injustice bi mu doon xeex. Mhm. moom ak Jomaay euh, président nga xam ni incha allah le 24 sénégalais yi daañuy xëdd. dem fal ko tekk si kanamu réew mi lépp lu fi nekk injustice Sénégal yi ko jooy depuis mille neuf cent soixante ba léegi incha allah dañ ko fi jëlee Mm-hmm. donc tey mënuma am lu dul sentiment de fierté pour le peuple sénégalais parce que Ousmane a été libéré par le peuple sénégalais mm-hmm. parce que nu était le peuple sénégalais heure bi peut-être waxoon leneen na ñuy wax mais tey tey suñu demee ba am candidat Diomaye Faye le président Ousmane Sonko ñu libéré que le premier hommage qu'on doit rendre je pense que euh, c'est le peuple sénégal nañu war a remercier pour leur mobilisation Tout à fait. et leur soutien indéfectible Donc, euh, je pense que cette victoire-là que nous avons aujourd'hui, c'est une victoire du peuple sénégalais. Parce que c'est un peuple mature, un peuple démocratique. képp ku leen bëgg a ñëw jaay leen doole bëgg leen jaay injustice daañu tax a yow janoog yow xeex yow malheureusement ñi fi nekk loolu nañu comprendre le Sénégal est un peuple invincible est un peuple invincible est une nation invincible waaw c'est une nation éternelle donc euh, kenn du leen ñëw jaay doole wala kenn du ñëw jaay ñu toog la seetaan képp ku leen bëgg a jaay injustice daañu taxaw xeex yow lu mu jaruñu def ko tey nag victoire bi ça fait partie parmi les plusieurs victoires yi nga xam ne am nañ ko dans l'histoire te tey vraiment wax dëgg yàlla lii ñu am ça confirme nag le peuple sénégalais est une nation libre waaw ki du ñu nangu kenn di leen teg oppression donc le président Ousmane Sonko dañuy sant yàlla bu mu génnee si jàmm ak wér gi yaram retrouver sa famille retrouver le peuple sénégalais qui l'a tant défendu contre l'injustice contre l'oppression mais mais maître kon actuellement mën nañoo xam ne Ousmane Sonko génn na. waaw génn na loolu moom. Euh, lu leer la wóor la effectivement ça a été confirmé génn na alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax léegi nag li si des mooy jublu si liggéey bi wàcc sur le terrain dem à l'intérieur du pays wax ak le peuple sénégalais yeewu nañu sax mais gën leen wax les enjeux. yi nekk si élection yi parce que tey si tey euh, tey ji élection yi ñu jëm élection bu crucial la dama dama naan c'est une première dans l'histoire élection yi la Sénégal war a jël son indépendance sa vraie indépendance mm-hmm. mooy élection yi mooy élection yi nga xam dañ fi jëlee le système li li li li Senghor waxoon peau masque euh, peau noire masque blanc mooy ay nit ñu ñuul ñi nga xam dañ fi nekk yor der bu ñuul waaye euh, xelu tubaab nañuy xalaatee xolu mhm. tubaab la ñuy sentir bëgg bëgg tubaab la ñuy yor moo tax suñu réew yi bien vrai que jël nañu énergie depuis mille neuf cent soixante mais ba léegi nit ñi dañu sonn nit ñi si naqar nañu dëkk nit ñi dañu yor seen réew mel na yoruñu Séné mel na dëkkuñu Sénégal daanaka le Sénégal est devenu une prison à ciel ouvert. Mhm. waaw prison ba nga xam ni euh, yaa ngi fi dëkk mais sa sañ-sañ dañ ko limité. Mhm. waaw du la du sa ay droit dara si jotul étranger yi sax daanaka ñoo gën a nekk à l'aise au Sénégal. voilà mhm. donc loolu dafi war a jógee ñu rétablir un Sénégal de justice un Sénégal ba nga xam ne wax dëgg yàlla ñëpp un Sénégal de mérite aussi nga xam ni wax dëgg yàlla képp ku am compétence daañu la teg poste bi ñu la war a teg nga liggéeyal Sénégal ba Sénégal yëpp gis seen bopp. jërëjëf mais maître euh, balaa ma lay bàyyi rek dafa am benn internet bu ne ana ngeen Demba ndax ci la bokkam déet. waaw ñoom ñëpp daañu génn incha allah parce que la loi d'amnistie je pense suñ ko promulguer rek. Hmm. ça concerne tous les détenus Mm, donc ngañ démb Touré incha allah dina génn fii ak lu yàggul jërëjëf maître Babacar Ndiaye. kon dinañ la retrouver incha allah très prochainement. voilà c'est jërëjëf mu ngi noonu maître Babacar Ndiaye nekk kenn ci kàngamu passé fi waaye tamit nekk avocat ah, jege loolu Ousmane Sonko doon ko jàppal tànk itam waaye avocat Ousmane Sonko la effectivement maître Babacar Ndiaye moom nee na ngañ demba également pour yéen ñiy demande ani ngañ demba ani ngañ demba maître ngañ demba Touré donc bu ñu sukkandikoo ci maître Babacar Makhtar Ndiaye avocat Ousmane Sonko nee na loi bi bokk na ci moom itam di maître ngañ Demba kon nag bien bientôt incha allah ou bien sous peu moom maître Ngagne Demba ture dina bokk ci libération yi donc mu ngi noonu info la bu ñu jox léegi nii en direct donc su ngeen ma mënee woowal itam yeneen ci ay euh, avocat wu Sonko ak ay avocat wu euh, Bassirou Diomaye Faye comme ça ñu gën a am euh, info yi d'une manière très technique ak juridiquement parlant jërëjëf donc Mbisaan Abdul Xaadir euh, donc kon kon loi bi ñi muy ñi muy ëmb bëri na alors réaction ya réagir réagir leen ah ubbil leen ma whatsapp bi ah joxal leen ma vidéo yeeg audio yi ñoom ñëpp nañ def ku mënul wootee doxal vidéo defal vidéo soo ko envoyé ci numéro boobu ngay gis whatsapp la